الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد بكي جريدي ما نجي دنك سام بابا رجال يلا لين كدنك يخمن يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفكو لوارلا فرطلا تكيبكو جم يلا يلا muy cofeel goo xam ne nag moo jiitu cofeel gi nit war a sopp boppam moo jiitu cofeel gi nit war a sopp doomam moo war a jiitu cofeel gi nit ki sopp mboolem nit ñi jële nañ ci anas ibni malik radiallahu anhu mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa mu ne maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom kenn ci yéen du ngëm ngëm gu mat ludul ne gën na maa sopp ni mu soppee way juram ak ni mu soppe doomam ak ni mu soppe nit ñëpp cofeel ak yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam féete ko kaw ci la nit ki di doog a am ngëb gu mat borom bi tabaraka wa taala wax ne su fekkente ne seeni bàyyi ak seeni doom ak seeni bokk ak seeni soxna wala seeni borom kër ak seen giir gi ngeen bokk ak seen alal yi ngeen am ak seen yaxantu bi ngeen di bañ mu lamb ak seen dëkkuwaay yi nga xam ne da ngeen koo gërëm bu fekkee yii yépp moo leen gënal moom ngeen gën a sopp ci yàlla ko yonentam ak jihaad ci yoonu yàlla kon leen ba yàlla ñëw ak mbiram te yàlla kat du jubal ñi nga xam ne nit ñu kàccoor alqaadi iyaad rahimahullah ci aaya bi mu ne aaya bii doy na sëkk soññe ak yeete ak tegtale doy na sëkkit aw lay ci ne sopp yonent bi sallallahu alayhi wa moom lañ war a jiital ci sopp leneen lu mën a doon war la goo xam ne waruk farata la mbiram itam lu màgg la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi aaya bi wane na yeyoo gu mu yeyoo cofeel googu ndax suñu borom tabaraka wa taala mi ngi tudd ayib yi ñi nga seen alal seen njaboot seen doom moo leen gënal yàlla ak yonentam suñu borom tëkku leen ci wax ji mu wax ne fatarabbasu hatta yati allahu bi amri nekk leen ci loolu rek néggandiku ba yàlla ñëw ak mbiram te mooy faatu suñu borom ci mujjug aaya bi mu tafsix leen ne ñii ñu kàccoor lañ ñu génn ak topp lañu waaye xam la ne itam ñi mel noonu ñu sànku lañu ñoo xam ne suñu borom du leen gindi wallahu la yahdi alqawm alfasiqin waaye mbokki julit yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla taw la mooy da ngay cay taxawlu bañ na la nii nga koy defee moo tax sharia rek mooy daytal mooy fixer melokaan wi ñuy wane bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nu ñu koy defee ak ay màndargaam bokk na ci màndarga yi gën a yuy wane bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari loo koy tudd te foo ko tuddee nga julli ci moom ndax kat ko sopp dara daanaka du jóg ci sam xel du jóg ci saw làmmiñ benn yoon da ngay bari loo koy tudd lool bokk na ci màndarga yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ñi nga xam ne bëggoon nañ ko lool ci ay saxaabaam ci ñi woon makka ak ñiñ fekk si woon madina waaye noonu itam nag képp ku leen noonu ñoom saxaaba yooyu bañ képp ku leen bañ di leen ŋàññi ndax kat ku bëgg mbir da nga bëgg ku bëgg mbir moomee nga bëgg bokk na ci bëgg yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam am ak ñeewante ci xeetam di leen laaye biir di jëf lépp loo xam ne lu leen di amal njariñ la waaye di dàq ak di sori lépp loo xam ne lu leen di teg lor la ni ko suñu borom melale yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ku xëroon lool la ci ñi gëm yàlla ku leen ñeewante lool la ku am ci ñoom yërmande la laqad jaakum rasulum min anfusikum ab yonent dikkal na leen boo xam ne ci yéen la bokk azizun maa ma anittum lépp lu leen di sonal rek lu ko diis la xarisun aleykum bil muminina raufur rahim ku xér la ci yéen bu sañoon ñépp ay gindiku ñépp ay dem aljanna ku amuk ñeewante la ku am yërmande la ci mbooleem ñi gëm yàlla kon képp koo xam ne bëgg nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu mu meloon ci aw xeetam ci yéene leen ak njub am ci ñoom cofeel noonu ngay mel ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li gën a fés gën a am solo nag ci wane cofeelug yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mooy di ko topp ci diine di roy ci moom xadi iyaad rahimahullah nee na xam leen ne ku bëgg dara loolee mu bëgg da koy gënal ci leneen lu mën a doon te day bëgg a dëppoog moom ci lépp itam kuy déclaré bëgg dara te gënalu la leneen bëggoo dëppoog moom itam loola neena bu boba ko ko dëgguwut ca cofeel ga muy woote waaye ku koy woote woo rekk la waaye ku dëggu ci sopp yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy koo xam ne mandarga cofeel googu day feeñ ci moom te la ca jiitu mooy mu koy roy di jëfandikoo sunnaam di topp ay waxam di topp ay jëfam di teggina ci ay tegginam ci bu nekkee ci jafe-jafe ak bu nekkee ci ak jàppndal ci bu nekkee ci yaatu yaatu bu nekkee ci xat-xat yépp lu muy def lu ne ci diine mu koy jéem a dëppaleeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te liy tegtale loolu mooy waxi borom bi bu wax ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni allah waxal julit ñi ne su fekkente ne wax gi ñuy wax ne bëgg nañ ko yàlla lu dëggu la bëgg googee la koy fesal mooy ñu topp kii mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la am cofeel ak suñu borom bokk na ci màndarga yi bëgg yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di dëgëral sunnaam di ko fesal di bañ a fent dara ci diina ji ndax kat wax na ne koo xam ne sos nga ci sunu mbir mii muy diina ji lu ci bokkut loola kat bul yaakaar ak pay guñ la cay fay waaye jëfi loole jëmmi loole nga jëf moom lañ del delloo bu ëllëgee ibnu rajab bi muy sara mu ne as hadis day day tegtale na jëpp jëf joo xam ne ka koy def amu ca ndigalul sharia jëf ja dañ ko koy delloo mbir mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nag mooy diineem mooy shariaam kon képp koo xam ne jëf nga jëf joo xam ne lu génn sharia la kenn mënu koo layal ci sharia du ci alquran du ci sunna jëf joojee lu ñuy delloo boroom la waaye luñ ko dig ak pay bokk na ci màndargay sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it di ko roy ndax borom bi neena kat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana am ngeen ci ndaw li ma yónni kay bu rafet waye kan mo koy roy nak liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ko xamne xam ne kat yaakaar na ne dana dajje ak yàlla yaakaar na ne dana tew bis penc wa sakara allah kaseera ci tudd yàlla lu bari koku day moy ko xamne lu muy def ci diine yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ci roy bokk na ci màndargay bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fonk ko lool màggal ko lool wekk ko lool borom bi nee na fallasina amanu bihi yonent bii ñi ko dëggal wa azzaruuhu wa nasaruuhu ñu màggal ko fonk ko dëgëral sunnaam wattabaau nuur allazi unzila maahu ñu topp leer gi nga xam ne moom lañu wàcce mu ànd ak moom muy alquran ulaika humul muflixuun ñooñee ñooy taxi bu ëllëgi Aboubacar ibn Ayas ne ahlu sunna ñi nga xam ne ci sunna lañu tënku nee na danañ faatu lu yàgg waaye seenu tudd ak seenu fàttaliku des fi ba mel na dañ fee nekk waaye ahlu bidaa ñi nga xam ne moom dañoo fent ci diine julli ci bokkut jàppe loola diine nee na ñooñu bu ñu faatoo rek foofa la seen mbir di yem seen mbir day fay ndax ahlu sunna kat dañoo dundal li yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax ñu am ab cër ci lii suñu boroom wax yonent bi ne ko wa rafaanaa laka zikrak yëkkati naa sa tudd yëkkati naa saw ba faw waaye ahlul bidaa muy ñi nga xam ne moom dañoo andi leneen sos ko ci diine mel na ñoom dañoo ñaawlu li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi ñu jàpp na ñoom am nañ lu ko gën ñooñu it am nañ wàll ci li borom bi ne inna shaani aka huwal abtar ñi la bañ ñoo ñooy ñi nga xam ne seen mbir day dagg fii ci àdduna kenn du leen fàttalikoti bokk na ci màndargay wala meññatum sopp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li muy jural ki ko def mooy kook sopp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ëllëg yowmal qiyaam bu dekkee dañ koy pang mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Anas Malik mi ngi wax ne am na benn waay bu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko saa kañ la maanaam yowmal qiyaam kañ la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko loo ko waajal mu ne ko ah man de waajaluma ko dara xanaa lu dul de day bëgg naa yàlla ak yonentam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ki nga bëgg ëllëg yéenay ànd anas nee na noonu nu bëggee ci wax jooju keroog mosunoo am mbégte mu tol noonu ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne koo bëgg rek ëllëg yéenay ànd mu ne man day anas bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa Aboubacar bëgg naa Omar maa ngi yaakaar ëllëg ma ànd ak ñoom cofeel bi ma leen sopp doonte sax nag jëfuma lu toll ne ñoom li ñu jëf mbokki jullit yi suñu boroom tabaraka wa taala wattandikuloo na lool juyoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa man yusaaqiqi rasul min baadi ma tabayyana lahu lhuda ku ŋaayoog yonent bi jaar weneen yoon wu bokkul ak li mu jàngale gannaaw bu mu la leeree nañ wa yattabi xayra sabilil muminin nga topp weneen yoon wu bokkul ak wi yàlla rëddal ñi gëm yàlla nu wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira nee na foofee mu féetale boppam nee na foofa lañ koy bàyyi mu féete fa te bu ëllëgee nag jahannama mooy doon ak mujjam borom bi dal wax ne wa yawma yaaddu zalimu ala yadayhi bisu yowmal xiyaam ki tooñoon Bapam, ci wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga gis muy matt baaraamam di wiccax loolu màndargam réccu la di wax ne laytani ma ar rasuli sabila Akan a ma àndoon ak yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam aw yoon kon dafa bàyyi woon yoonu yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi ne yowma tuqallabu wujuhuhum fi nnaar ñooñu wute ak bi jaar ëllëg buñ leen di naq ci biir safara di wëlbati yaquluuna yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula aka neexoon nu toppoon yàlla aka neexoon nu toppoon yonent bi mel na dañ ne leen waaw kon lu ngeen toppoon ñu ne inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalluuna sabila ñun dey ñenu jàppe woon ay sang ñu wanne ñu ñoom ñoonu gën wanne ñu ñoom ñooy sunuy njiit ci diine rëy lool ci sunuy bët ñooña lan toppoon lu ñu leen def fa addalloona sabila sànq nañ nu bañ bàyyi yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne rabbana aatihim defayn min al azab yàlla ñiinu sànq na nga ful mbugal mi nga leen di mbugal foo nu mbugal benn na nga leen fa mbugal ñaar ñoom ndax ñoonu sànq jële ci abi xurayra radiallahu an mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man day ku ma topp topp nga yàlla ndax wa man yuti rasula faqad ataa allah ku topp yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam topp nga yàlla waaye ku moy yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla nga moy mu dellu wax ne nit ñépp day danañu dugg aljanna lu dul ko bañ ñu ne ko yaa rasulallah àjjana kan moo cay bañ a dugg mu ne ko ma topp day moom loolu mooy sabab ba da ca dugg waaye ku ma mooy nag loolam mooy gantu ga loola mooy bañ a dugg aljanna ndax amul weneen yoon wu ñu mën a jaar ba dugg aljanna te jaare woo ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo kat wallasina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim ma nuzila ala muhammad wa huwa alhaq li wàcce ci muhammad mi loolu rek mooy dëgg goo xam ne ci la nit ki mën a jaare ëllëg ba tàbbi aljanna kon nag yàlla nu borom bi tabaraka taala tënk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musal nu ci lépp loo xam ne wuuteeg moom la borom bi tabaraka taala may nu mujj gu rafet ba ñu dajeeg moom ci yoon woowu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di pang ëllëg ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain